jërëjëf mbokk yi ba tey am mbégte kontaan bu baax a baax pour ñu ñuy suivre euh, ci li nga xam te moo ci seen yi nag ñu ngi waat fi nga xam ne mooy ba tey biir géejawaay seet si kenn ku nga xamante ne bi euh, xale la ndaw la war a bëre ci li nga xam mooy journée Pape Sarr Sarène production bi mu war nekk le 20 avril foofee ci arène nationale ñu koy wax Boy Dieng moom moo ci war a bëreek Ramdan Junior bu nekk foofee ca écurie Bawol muy journée bu nga xamante ne bi amateur yaa ko waxtaanee dañ koy nuyu nag bàyyi ko su ko defee ñu a ñëw ci bi Boy Dieng maa ngi lay nuyu baax a maa ngi lay fay di la sant di la gërëm di nuyu ñi ma ñëpp di julli ci yàlla sant sama ñaari waajur di sant ñi ma àndal ñëpp nag xaw ma seen fay ba pare ñoom laa jël ñoom laa jël nuyoo bi teg ko seen loxo ku ci mel ne Labaas waaw Xaadim Lagros yëpp teg ko Balla Aïssa ñëpp waaw nuyu naa ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. non damaa tibboon suuf entraîné wu ma de. No no. non non mais yow jël avance ku mel ni Ramdaan Junior ngeen di entraîné woo. maa ngi entraîné laa la damaa tibbi woon suuf léegi léegi nga ma laaj wala waaw maa tibbi woon suuf. mais xam nga mbër mbër bi nga war a bëri. xam naa ko waaw xam naa ko. noo ko xamee. xam naa ko jàmbaar la bañkat la. Mhm. waaw. xale bu xale bu dëgër bopp la waaw. dëgër bopp la waaw. tey ah, mm. euh, Boy Dieng maa ngi lay nuyu di la ziar yi la jox sa wàccuwaay comme mbokk ni ko Thierre waxee mbokk internet Média Plus 221 ñu ngi fi ba tey géejawaay fekk fi benn xale xalé bo xamanteni ni bi ñëwee gis nañ ne amna ay mbokk manam ñi taxaw ñu ngi koy soutenir euh muy Boy Dieng wara a euh, bëree ci journée bobu le 20 avril Sarène production mhm. journée boobu nga xamné grand pap sar mo koy tëgg Boy Dieng war ci bëreeg Ramdan Junior bu Rock energy bu Bawol voilà Boy Dieng comme li gar comme li tier wax rek man bima gisee suuf si dama tiit dama ni Boy Dieng xanaa pareegul suuf si tibbu suuf ak yaram bi ni mel nii Boy est-ce que suuf nga tibbi woon. fas baa ngi ne taxaw loolu kay amul amul laam laam fas baa ngi ne dama tibbi woon suuf ba léegi. mais da nga ko sangoo suuf si nu mu demee nii. bu ma ñëwee noonu laa koy sanguwaatee sax moom. kan. le vin bu jotaatee noonu laa koy sang sanguwaatee. koy sang. moom. moom man moom ramdan Ramdaan xanaa ñeme woo ko. moom Ramdaan. loo koy di sant di sant premièrement pap sar moom mi tëgg combat bi décroché combat boo xam ñëpp bëgg nañ ko moom mu jël ko billaa walaay tëgg ko dañ ko ciy ñaanal réussir ba pare moom dañ koy ñaanal réussir ba pare di ñaanal mbër bi jàmm ñaanal ko sama bopp ñaanal ko képp kuy bëri ci bés bi ba bëri su bañ a yàqu ñu ñëw bëri si ko ci fulla ak fayda indi ku nekk indi këla gañ këla moyer gañ laa wax mais boo jee ñëpp dañ ne ñëpp dañ ne da nga doon yooru mais yaa ngi soo ko yeb ndax booy bi nga jël saf sap wex xat tey say morom ñëpp dañ ko fay moytu bàyyi ka fi ndax xam li nekk ci moom tey nga jël ko lan moo la may fit nga jël man lu fi nit ñi bàyyi rek laay jël soxla mu lu fi nit ñi bàyyiwul wax dëgg yàlla. Hmm. waaw yow feebar yëpp dañ ci nga tàmm siti. cor corona sax moom corona laa soxla soxla wu ma sax ay siti loolu dafa dafa tuuti corona bi laa bëggoon mu dellu si waat. maara day taal corona kay bu mu ah. daa am lu ma ko bëgg a wan tuuti. Hmm. le vin laa koy wan le vin. dafa am loo ko guuxal. non nekkul guuxal ndax guuxal nekkul pour moom kese làmb ji. Hmm. pour ñëpp la fi mais le vin dama war a wane sama bopp quoi dama a wane man fi ma bokk ci làmb. te nekkul kii moo ma koy téewaat. moo la koy téye daa am lu may xaar quoi gars yi ñu ma yónni yàqamti ma du Baxdaat du Wàqinaan du Baylaay du Njaareem. su ma limee damay juum quoi billaay su ma limee damay juum. ma ne Ramadaan waajal loo waaj doyul. loo waaj rek loo indi doyul man pare naa fépp bu doon léegi-léegi neex na laa bu doon léegi-léegi billaa wallaay taala man waxuma la si bu doon léegi-léegi rek neex na billaa wallaay taala ah, gars yi dama leen a yoral bor ko waaw te dama leen kaa a fay mais boo jee da nga duggoon bawal am loo fa jëlee muy sa diggante ak moor Kankang dugg naa fa ñaari yoon ñaari yoon te ku xam euh, Ramdan Junior xam ko diggante ak euh, Mor Kankang nga ñëwaat foofu encore jëlaat euh, Ramdan ndax tamit du xaw a nekk tuuti jafe-jafe ci yow. non non ba ma fay daan foofu neexul nekkuloon jafe-jafe comme bu ma fa ñàkkee. du jafe-jafe comme bu ma ko war a jëliwaatee tam du am jafe-jafe. Hmm. làmb la rek làmb moo ñu boole. gars jox nañ ko kele bi de. loolu garaawul bu ñëwee dina am leneen lu dul loolu. Ah. waaw maa ngi lépp. yaa ngi lépp billaahi. mais tey arbitre génn sa diggante ak euh, Ramdan Junior dagg jëng waaw da ngay dem wala koy xaar. lépp laay def maa ngi lépp laa la. wala ñemee dox ci kawam. billaahi wallaahi taala bu arbitre sifflé loxo dina dar gémmiñ quoi te téeleen ma jaay rek. yow ndaanaan comme comme garaawul ba arbitre sif la. mais mais yow combat bi ñun duñ tardel kenn ndax moom wax dëgg yàlla mosul tardel kenn tamit ma mosee bëree 20 minutes daa mel ni ñii ñoo ko reporté mujjul dugg bi mujjul dugg ah. maag doomu parcelle waaw <laughs> boobu rek laa mosee bëri loolu mosuma bëri 3 minutes yu mat boobu rek laa mos a bëri combat boobu. teram daan bi ñaanuma yàlla sax bëri moom loolu. waaw mais man mais man li may dégg baat bi nii la mel wala dafa dee coono la wala lan la. ba coono damaa sonn billaahi wallaahi taala damaa sonn damaa tiit damaa def lépp man daal naa daan rek en tout cas te damay daan bu soobee yàlla li yàlla di maye bu ko nanguwul daan sonn naa trop ba gën ko sonn moom. ah wóoruma ba sam moom wax dëgg yàlla. Hmm. mais man damaa sonn sama bopp xam. quoi mais euh, bu dul ci làmb ci lan doon mënumaa sonn ci leneen xaalis bëri lañ fay billaahi wallaahi taala mu jël al Pape Sarr mu jël ay xale yu ndaw décoré la ñu naan leen warul ñoo bëri spécial mu jël ñu ñu ko comme yéene lañ joxe dañ koy fayaat te bu soobee yàlla hmm. man sama côté du ma kaaw côté man côté bi naa ko duyal ba mu fees dell man ah, su paree ma daana ko nga nim jël mu euh, ñu hmm. dégg comme ne borom saret ya aye eh, na ñun ñoo moom dëkk bi <laughs> waaw ah. ñun ñoo moom dëkk bi fii réew mi waaw ñooy fale kuñ bëgg mu kii kuñ bëggul la mu abal ñu fi ah. ramdaan mi ngi lay xool xam naa fi dinañ ko xool ak may jamu, ma ne may jàmm ramdan yàlla la yalla may jamu, defal la jàmm ba la vingt yàlla suturaal ma may man dam sa kaw yàlla mënu ma def li man lepp lay def ne nga da ngay sang koy sang souf de wax man day teud rek en tout cas numu def teud souf si dang ko koy sang wala day teud rek mom la lay wax numu def teud mom en tout cas lu def daanu moom def lu def daanu lu def daanu kon mom lamb xana amu ci sens ah, gisuma ko de kep koy takk nuxura nag maa ngi lay wo kep koy takk nuxura ah. waaw ah, maa ngi lay wo euh. tay sponsor bi nga xam tay mom nga sol muy wan exibet tey jàpp ci li nga xam te mooy ci làmb ji ba tax bee ñu mën koo wàññi def ko bee 1000 francs te lu mu soo am am maanaam tëggal la pare may la ay bëla ko tëggee loolu loo ci wax waaw moo tax man la moom moom laa njëkkee nuyoo bi moom laa moom Pape Sarr mhm. moom suñu grand bu baax la budul budul budul wàllum promoteur laa mhm. daf ñoo yéene mhm. daf ñuy woo di waxtaan ak ñun defal lii defal lii comme nekkul comme ci làmb kese wëlbatiku mu jëlaat xaalisam bu bëri jox ñu ko ñun voilà comme yéene moo ngi foofu premièrement di ko ñaanal jàmm mu réussir ci combat bi mu tëgg waaw wondu xibet la ñu wax ñoom ñi ko sponsoriser ñoo gën koo yokk doole mu tëgg yeneen combat yu dul yii waaw xam naa ne moom jàmbaar la ko quoi dina tëgg leneen loolu lii ay sàccees ak yëpp dinañ ko fi xaar ak mbëru waay yëpp ah. waaw yëpp dina fi xaar mu tëggal leen combat te bëgg nañ ci di ciy yegg lii di bëri ñun waaw te fii mooy nga daan ba pare mobiliser mbooloo bu bare te bu soobee yàlla dinaa ko daanaa nga leen jël ah. mobiliser ko stade bu mu fees dell ah. am nañ yéene quoi te yéene nañ ko ko moom ndax yéene nañu waaw di sant wa won ak sibet mom mi tax ñu bëre ay ticket 1000 francs mm. ku ci gis ya xaan mbapat la ñuy bëre ñun loolu mbapat sax bëreetuñ ko woon mbapat ñun ñu ngi bëre ay bëre 2000 ba mom mu defal ñu loolu comme teranga la mm. yalla ci yalla sotti ndox bu sedd ba mu gis ci bopam mom billah wala te yalla mu na loolu waaw waaw comme ni nga ko waxe rek euh 1xbet la bëggoon duggu ndax c'est grâce à 1xbet ticket yi doon 1000 francs fay la cacher ba paré wàññi la ticket def ko 1000 francs ba paré may la ay bologu ticket Pape sar mënul lool ci propre moyen da fam ko ko gungé kon ah. wan wan exibet moo mu mën lool ah. motax ngeen war ko sante sante nga ko gërem nga ko ñu ngi lay jaajëfal di la wax né fim toll ni man mom raam daan xam naa ne yërëm naa nga amul ben sens di la wax nak nga wo nga wo sa mbokk yi ñi ngay sante di leen gërem ak ñi ngay wo parce que ki sen drapeau bi ndax kiñ ko tuddé ndax ñëw na wala ñëwagul mané ne kooku dina ñëw rek sidi ñaan ñaay sa xoon lañ wax moom noonu la tudd quoi. waaw Sini Ndiaye bi kii moo ci moo ci moom moo gore quoi di ci yem. waaw moom bëggul loolu moom Sini Ndiaye ñëpp la soxoon ma ne yow ñu ngi lay xaar waa Guédiawaye. drapeau bi sa drapeau la te daa war a ñëw. Hmm. bu ba tey defal la war quoi. waaw kon Sini Ndiaye ñëwal te dafay def rek moom dafay def di woo waa Gunaas waa Bagdad waa Bayla waa Mars Ndiaram xel kom ku jum waa Warsam bii ma nekk ni waaw képp ko doon laalax maa ngi lay woo ci combat bi nga ñëw jàppale seen raq seen xarit seen àndandoo mu ñëw jëli lu looy wax Boy Dieng wala bokk Ramdan loo koy yóbboon nga lay am lépp rek billaahi wallaahi taala ma ne na la yàlla suturaal rek ba ñëw ci làmb ja li ci des yëpp yow taxawal rek di nga gis lépp dina am lépp tamit waaw loolu laa bëgg de man a ah, xaw ma de a ah, loolu laa bëgg de man di sant waa daara ji bu baax ak waa Mor Fadam te jàpp nañ ci contact yu baax a baax a baax mm. waaw ku lim juum quoi waaw jàpp nañ ci baax a ma mafia gaynde bamba bi ñu ngi koy woo dégg nga mafia gaynde bamba bi waa waaw saaloi ñëpp ku boo limee da ngay juum quoi billaa wala kërëbase waa asiko asuma yi ñëpp bàyyiwuma kenn laalax ba si yéen yéen su paree di ngeen ma faral ko waaw dinaa am lu ñu def waaw eh. waaw kontaan na ci yow jërëjëf ah, maa lañ ko doon kontaan 121 ak li nga xamante ni mooy euh, ngalam waaye ak ETDR tey ñu ngi fii ba tey Ikiri Bawol bu ñu nee Bawol tamit nag dañ fi seet sax beneen xale bu nga xamante ne bi war na bëre ci journée Pape Sarr muy Saareen production mu war am euh, samedi le 20 avril foofee ca arène nationale diggante Bébé Birahim ak Zal Bambay waaye combat spécial bi Dugar Pël war na cee bëre ak ki nga xamante ne bi mooy Boy Baldé waaye beneen spécial bi ki ma toogal di Ramdan euh, Junior war na cee bëre Boy Dieng dañ koy nuyu nag ginnaaw bi adversaire am waxee muy euh, Boy Dieng dañuy nuyu Ram daan bàyyi ko mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu ko ne waxtaan bi Ram maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar. maa lay fay bu baax a baax. auzu billaahi mina saytaani rajiim ginnaaw ba ma sante yàlla julli si yoonante bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu ñëpp di nuyu axlu lam di nuyu diaspora bi wa du nuyu waa fii seen mbaaral sama dekk fi ma juddoo ma ngi nuyu yeb du nuyu wa écrit bawol bi yeb wa du nuyu sama école de lib Cheikh Mbaba ma ngi nuyu yeb bàyyi ma ken sama kut su Baye Bada ma ngi koy nuyu bu baakha baakha ba du nuyu waa Medina fi ma joge wa du nuyu ñep du nuyu ahlul làmm wa bu baakha ba di len nuyu bu baax di am contentement ci yeen bu baakha a baax di am mbégte bu baax wa du nuyu suñu promoteur bi pap Sarr ñu ngi koy nuyu bu baakha a baax waaw di ko ziar wa du nuyu sama gaay nak wa sa ndaga aw ma seen fay maa ngi di nuyu ñoom ñëpp waaw ku ne sa tur sa santé. Mhm. waaw di nuyu gaa yi yëpp bàyyi ma kenn képp kuy naan yokkal ma jaaree rek maa ngi lay nuyu bu baax baax a baax waaw di nuyu ñu ci mel ni mbay ñu mel ni Ablaye Diouf ah. ñu mel ni euh, euh, Moussa ñu mel ni Bamba. ngay jël ma nuyoo bi ba di nga ñëw mais Ram da jëm ci komba jëm ci waa Thiaye sa diggante boo Boy Dieng combat bi yàgg na wàccaay bi yàgg na fan nga toll ci préparation bi. waaw ñu ngi si yàgg na trop mais ñu ngi koy meññee ñu ngi si bu baax ñu ngi waajaay bi ñu ngi waajaay bu baax mm. pare nañ daal fu mu ne nii daal pare nañ instant yi moom waaj jeex na pare nañ. Mm. waaw bés bi rek la ñuy xaar incha allah ñu def li ñuy def. xam nga boo Dieng. bu baax xam naa ko. noo ko xamee. noo dugg na sama écrit ñaari yoon. ñaari yoon. Mm-hmm. am fa benn victoire. am fa benn défaite benn défaite. waaw ci lay fi lay mujjee dugg na. fi lay mujjee waaw incha allah. doom yaay ziar naa ba waaw ngi lay ziar bu baax Ramdan di la ziar di la jox sa wàccuwaay. waaw média plus 221 comme ni ma ko mm-hmm. waxee mbër mi fi jógee sànq. Mm-hmm. mën nañ ne dañuy gan ci terrain bi di leen dénkaat suñu bopp. Mm-hmm. maa ngi tudd Aba. Aba média plus 221 maa ngi lay ziar. Aba ñu ngi lay delloo ziar bu baax a waaw. di di kontaan ci yow ci am yow yow ci mbégte bu baax a baax di la ziyaara bu wér a waaw am contentement rek mbégte waaw di ñaanal site bi yàlla na ko yàlla jëmal kanam incha allah waaw ñu fi nekk ñëpp journaliste yow waaw képp ku yor. waaw ci Boy Dieng lañ jugee léegi mais Boy Dieng li mu wax dafa doy waar nee na man Ramdan amul sens. amul sens. bëre bi amoo ci sens xeex bi amoo ci sens loolu moom ma jaaxal. ah loolu la wax moom. waaw buñ ci yéegee incha allah dina leer dina xam ne dax moom moo ci am maa ci amul sax wala moom moo ci amul sax incha allah buñ ci yéegee dina leer te bi ma yéegee léegi dama gis mu tax suufu géej man ko booy ñëwee foo mu ne ma dama tibbi suuf dama doon tibbi suuf te suuf si ni ma ko tibbee xëppoo ko ni noonu laa koy xëppee waaw loolu bu la nee fi mu ne nii nii nga jël suuf si xëpp sa bopp def lu nekk fii mais suur ba incha allah ci suuf lay féete nu mu taqee noonu suuf suur ba mooy taq suuf incha allah ci biir géej waaw dafa teel a kii boppam sax xam naa jour ba mooy feeti ci suuf ma feeti ci kawam incha allah. Ah, dafa teela a suuf dafa dafa yàkkamte suuf mais jarul yàkkamte ndax ci suuf la ci foofu laa koy ga suul ko ci biir arène nationale incha allah non foofu laa koy suul non dama koy daan ba pare suul ko fa incha allah. wala pare nga fi ñun pare nañ amatuñ waaj ñun kay pare nañ combat bi depuis ñaata mois xaw ma yàgg na ko ñu préparé préparé bi yàgg na trop. mais ñu ngi sant yàlla nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñu ngi ci kawam incha allah ñun daal pare nañ xamal lu ñu xaar le 20 avril incha ñu dem defaral ko bagage boo jee daa bokk si ñoon nii rek mais taxu ñoo jéggi si làmb barki alxames ñun xam luñ luñ fi ñu teg suñu bot ci làmb du boo jee de keneen la incha daf cee bokk rek. da ciy bokk yoon bi rek da ciy bokk nii rek ñu fël rek jàll xooli leneen incha allah. waaw fi mu toll nii ma laaj la wan xbet maanaam mhm. jàpp bi mu jàpp ci combat bi comme ni nga ko waxee. Mhm. tax Sarene production mën a réaliser bu toll nii le 20 avril maanaam billet mu yoxal ñu ko ba 1000 francs mhm. jël ay bolog bi ticket may leen mhm. loolu mën naa ne c'est une innovation man mhm. déggaguma ko maa ngi koy soog a dégg si par ngay wax wan waaw loolu moom am am ci kontaan moo baax bégte waaw wan xbet daa ñëw pour jàppale làmb jàppale promoteur bi Pape Sarr ndax bu jàppale Pape Sarr rek mel na ni jàppale nañu ñun mbër yi ah. waaw ñu kontaan si moom bu baax wax ne kooku moom daa ñëw pour jàppale làmb seen lu mu am si làmb ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax incha waaw di sant suñu promoteur bi Pape Sarr waaw ndax moom lu mu def nii mosu mën naa wax ne ma koo gis waaw wala bu ma ko gisee it neew na waaw promoteur def ko am am sa combat wàññi say billet may may mbër bu ne nga may ko bëla ko billet waaw xam nga kooku ñëwul pour wutul si ñun daal kooku ñëwul pour am si ñun xaalis ñëwul pour am am ci ñun alal ko daa ñëw pour jàppale mbër yi jàppale ñu bu baax baax moo tax ñun amuñ fayam quoi ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal réussir waaw di ko ñaanal bu baax a baax Pape Sarr amuñ fayam sama premier combat ba léegi moo ma yor parce que moo may tegal a combat nit ñi bu ñu ma xamee tey ginnaaw yàlla moom la quoi waaw maa ngi koy sant bu baax a baax waaw amuma fayam daal. boo jéem ne da ngaa juum ndax boo laajte woon ñenn ci biir Bawol doo jël avance am. loolu ay wax la rek waxu mbër la. loolu waxu mbër la ku xam Ramdaan xam na ne maag booy jee bii du combat. mais du combat dama ko xam bu baax a baax. yow ngay entraîné muy entraîné. waaw loolu am na maay entraîné mu ngi entraîné di préparé ak mbokkam may préparé ay sama mbokk mooy boo xoolee du combat xam nga lu tax du combat. Mm. bu at bi suuf lee ngeen koy comprendre incha allah. Mm. nga xam ne man mi Ramdaan kii boo jee taxumaa jóg si làmb barki alxuraanu karim man daa fi ma teg sama bot comme li ma leen wax léegi rek daa fi ma teg sama bot daa fi ma war a yéeg waa Fisal dama leen war a yóbbu roi du Sane waa Bawol incha allah barki alxuraanu karim moom ci ay seconde wala ay seconde ngay naan ay minute prix bip lay nak bu ngeen yexé du ngeen ko gis bu ngeen yexé tal seen site du ngeen ko jël kon yow ñu mëna digay da mel yow ya daxa bëré ya ëpp doole ya ëpp lepp lepp mako daxa bëré mako ëpp doole mako mako mako ëpp lepp ci lam kon amul sens ci combat bi dedet mom mom mo ci amul sens boy taw di nan ramdan amul sens ci combat bi rek lolu daf may japp ay ré quoi euh. barki sayidina mohammed dama xamne man euh. man xel bu ndaw am doole liggey ah mom la do xalé mom mom pala bu muy bëré ba duggaguma ci lam <laughs> wa gay pala ci man euh. waaw bu muy bëri barki alxuraan boobu xalaatuma ko dugg si lamb man yàgg naa ko di ko seetaan Ibamar fii barki alxuraan bu at biit soufflé may bu may mbokk ay yeelam yooyu dama koy dàmm sax barki hmm. alxuraanu karim mais arbitre soufflé kon ci nga jëm si kaw amul ah, ni arbitre bi naan pare na sax boo moytul si kawam lay mais xam li nga fay fekk waaye lu ma fa fekk baax li ñëpp di wax mooy Boy Dieng dafa mën a bëre waaw loolu laa bëgg mbor buy bëre waaw arbitre bay suuf la rek daal naa si kawam incha allah hmm. mbër buy bëre bu dëggal boppam gëm boppam kooku laa soxla man man soxla moom mbër buy rasu ay arrière ak di mooy loolu dama soxla nga dëggal sa bopp taxaw boo ko defee combat bi du yàgg day neex hmm. yéen du ngeen reporté bu seen kii bu ngeen voilà mu ngi noonu man soxlawuma loolu man laay laay la daan na ko rek laa soxla man bugguma ay nekk foofu laay laay ñu ngi lewtoo jàppante nañ bàyyante nañ puusante nañ génn nañ saa saako déedéet <laughs> man xale bu ndaw laa waaw ma loolu <laughs> damay jàpp rek daal incha allah euh, mais important combat bi fi mu tolluwaay tolluwaay bi mu am ci yow fan la xam nga ko wala xam naa ko bu baax a baax xam naa ko bu baax xam naa ko lan la la jaral non combat bi jar na ma lépp ndax xam naa bokk na ci samay buntu laam incha allah waaw ndax bu ma ko daanee def may gën a yóbbu fu sori incha allah ci laam waaw xam naa ko bu baax a baax mm-hmm. mm-hmm. sa diggante moom mun na gaaw la waaw day gaaw léegoo li ma la wax du ngeen reporté ba sonn mm-hmm. incha allah bu taxawee du ngeen sonn duñ sonn déedéet ngi lay seeraan nee na lépp moo la ko dàq nag moo la dàq bëre moo la ëpp doole moo la ëpp xeex dimaas wala boog samedi la fay xew yëpp moo koy def te mooy am ndam si kaw loo koy tontu moom xam nga xam nga lan la am ci combat dugg si na def na lu muy def genn bu ñëwee daanu ñibbi sottee ko na ay butéel am lu ñu ko tegtal yëpp def ko ah. ah ñëw daanu ñibbi moom na ànd ak ay mbokkam ndànk rek waaw dem jël am na fexe relakaam buñ ci dag dara ndax bu ñëwee buñ ko dagee buñ ko dagee day ñëw daanuwaat muy nag ñaari defet ci moom day gën a métti si moom ñaari eh. defet la ñàkk xaalis eh. ñàkk sa combat ñaar yooyu moo koy daal hmm. na ñëw ba bañ a indi ay butéel yu bari teela a soteeku lu muy soteeku sañ see du ko dag dara mu teel a ñëw eeram bu mu ci tar dara ah hmm. teel a ñëw def lu muy def mu ñëw ma daan ko ndànk mu dem ñibbi incha allah waaw. foo toll ci bi ginnaaw béy yomb na seerul foo toll ci mobilisation bi ak sat ndax nga fa a ñëwee ak supporter waaw ñu ngi ci bu baax a baax a baa waaw ñu ngi ci bu baax xam nga ne billet moom seeruñu moo tax mbër bu ci mobiliser wul rek war nañ xoolaat sañ mbir mhm. waaw incha allah waaw mhm. diñ ci mobiliser bu baax a baax Pape Sarr du ñu gën a gore incha allah dañuy indi dañuy mobiliser bu baax mboolo bi day ñëw bu baax a baax waa Fisel ñëpp ay ñëw baawal kenn du des mhm. waaw waa Sandaga kenn jóob commerçant yi yëpp gars yi jënd nañ billet bu pare incha allah lu ci des mooy jël kaar yi ñëw stade incha allah jàpp jàpp gan gi defaral ko bagage waaw léegi nag maa ngi woo ñëpp nag di woo sama gars yi. Mhm. Saalu Gajaga a Diop Mbay borom États-Unis maa ngi lay woo si combat bu baax a baax waaw di woo ku ci mel ni mustafa Moustapha maa ngi lay woo si combat bi nga gën ci jàpp bu baax a baax waaw di woo sama gars yi ñëpp daal. waaw di ci mel ni sama suñu mairie bi maa ngi koy woo bu baax si combat bi Omarine maa ngi lay si combat bi jàpp ci biir bu baax a baax. Mhm. waaw di woo waa Fisel sama mbokku séeréer sama mbokku bool-bool yi maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn ba ma limee demee ñu Medina. Mhm. mafia 10 bi ah sama 10 bi maa ngi leen di woo ñoom ñëpp waa sama 10 bi Dakar plateau bi yëpp. bu mhm. kenn des incha allah maa ngi leen di woo yéen seen combat bi combat bi seen combat la incha allah ñëw leen mobiliser def lu neex. yëngal ci kaw ma yëngal ci yëngal ci suuf incha allah jàpp gan gi ko ba ngeen neen yéen seen incha allah ma door ko ci souf waaw inshallah allah wo ñep bayuma ken Medina bi yep bàyyi ñu kenn Fass gol Gueule Tapée waaw ñu ngi wo ñep waaw Colobane ñep bàyyi ñu kenn daal allah waaw jaa ma Mor Mor. Mor waaw sama grabi bi lu nekk si man moko def inshallah allah waaw kooku mom awuma feyam motax tax mang koy sante bu baax baax di ko diko ñaanal di sante sama grand manga ah, mangko koy sante bu baax dafa sonu si man waaw mang koy nuyu a passage mhm. ETDR établissement Touba Darou Rahman ci liguey ay bâtiment lañu ko ragné liguey bu taru lol te am qualité lol ñu dëgmal nak liguey bu yees mbokk mi déglul li travaux de réhabilitation du tribunal grande instance de Thiès ñu war ko défarat ba mu ñoŋ ci anam yi mu gëna baxé baaxee mbokk yi bu ñu jógewee fofu nak dañuy démat ci benen travaux de réhabilitation ci tribunal bu grande instance bu Mbour défarat ko ba mu gëna bax def ci ay étanchéité de dernière génération def ci peinture yi gën ci peinture yi ba nopi teg ko ci ay loxo yu wóor Bâtiment militaire de Bargny bâtiment alimentation avec construction d'une fondation micropieux Mbokki fondation micropieux nak moy li nga xamanteni ni bâtiment bi du tegee ci souf ci da ngay defar micropieux yi ba noppi dal di jël bâtiment bi teg ko ci kaw fondation bi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 ETDR, établissement Touba Darou Rahman, travaux de bâtiment, BDP génie civil, fourniture de matériel, prestation de services nous Tuto, ci toog bu ñu 77 575 50 25 le 33 824 57 43 ETDR accessible ne pour ñëpp suñu adresse mi ngi fii ci Pikine ci technopole nationale villa numéro 406 ETDR moo lay aar sàmm sa bâtiment ba mu am durée de vie bu yàgg kon nag gars yi gaaw ETDR ndax nag